jot ko ci jëwriñ liggéey bi jot ko ci euh, ñi nga xam te ñoom ŋànk liggéey bi di maanaam euh, liggéey bi maanaam ñes koy waajee ak euh, nga xam mooy ñetteelu édition bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi billah mbokk julli ji mbokk taalibe yi wa inniya awaisu bika wa zurriyataha min seytaan rajim rabbi onze bika min hamazati sayatin wa onze bika rabbi an yahdurun mbokk julli ci mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay baax di jiital ci siyaar boobu mu gën fa yàggal te ànd ak wér noonu la ñuy ndokkel mboole si mbokk taalibe yi nga xam ñoo faray ci liggéey bi di siyaare kulluhum képp koo xam ne ko yaa ngi tund Pambal di siyaare mboole si jëwri ñi nga xam ne ñoo nekk ñu ñoo nekk sa gox goxaan te ñu àndee liggéey bi ñuy santaat suñu borom bu baax ak tawfeex gi nga xam tawfeex nañu ko kàttan nañu ko mais nu ba ñu fekkee ba ñu fekkoon bés bi daaw yàlla dogal ñu fekkee ko ren suñu borom dogal ne dañoo jox ci wàllu liggéey bi ñu am pàcc buñ bi mu mel ni euh, bés bi ni ki daaw euh, daaw jëkk lañ ko fi commencé ba daaw euh, ren ji mu nekk troisième édition ren nag mu bokk ci bés yi nga xam ne mën naa wax ne dina dina gën a ala dem ci bés yi ndax waajal nañ ko noo xam ne kenn ku ne xam na ne lii lépp loo xam ne defoon nañ ko daaw defe nañ lu lu ko ko ndax boo xoolee ren jii mën naa wax ne ci ci wàllu liggéey bi daanaka ànd nañ ci sunu mbokk taalib nga xam ne ñoo nekk bitim réew daanaka fii ba Maroc fii ba Italie fii ba Mauritanie xam naa incha allah bu ñu yegg ci cérémonie bi danañu gën a leeral lépp loo xam ne euh, wàcce nañ ko bis bi ak lépp loo xam ne programme ci bis bi waaye ci gàttal daal bis bi bu ñu xëy ak léegi euh, wàcce nañ fi alxuraan ginnaaw bi ñu nekkee ci organisation base bi ba mu fi ay kaamil yu bari Euh, mbooloo ba léegi moo ngi nii noo ngi nekk it di ay ay moom daal lépp doo xam ne naa noo ne ko Serigne Saliou Mbacke doon doon jàngale ak sant moom noo ngi ci mooy sant moom di ren di bernde togg ay ñam yu neex di ko seet la te doo ci am xaj ak seen loolee wax dëgg yàlla depuis suba ak léegi ñoo ngi ci waaye ñoo xam ne mbokk taalibe bi boo léegi kenn ku nekk bàyyi ko ci gox bu ne ngir yegg si ci bërëb bi muy Ndakaaru muy fure ndax lépp rek ngir jël ko ànd ci liggéey bi ànd ak liggéey bi nag ñu fàttali leen noo ngi ci ànd ak suñu di Serigne Mouride Dione mi nga xam ne mooy suñu jànkat ndax ñu faral di wax ne liggéey bi kenn ku ci nekk daanañu dégg ay fan si club diw fan si club bi ñoo xam ne ay ñu di saahir lañu nekk ci gox bi di goxu Pambal nga xam ne mooy 21 villages yoo xam ne mat na xam ne danañu ànd ñoom si liggéey bi muy juróom muy 21 euh, villages yoo xam ne dana composé ànd mobilisé ànd ak euh, jànkat bi nga xam ne mooy sëriñ bi dara ñoru ko lu dul sëriñ Tuubaa xasaay di ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi yàlla dogal muy wóote ak bis bis boo xam ne da nga ci fàttaliku waale eh, eh, waajuróom bu tedd wa di sëriñ Abdoulaye Dione ñaan suñu borom den weesa wéer mu dem waaye ñu fàttaliku ci itam suma jàmbaar joo xam ne doon nañu ànd ñoom ci liggéey bi nekk daaw muy sëriñ Malick Thiaw mi nga xam ne eh, mu ngi dëkk fii si gannaaw kenn ku ne xam ne ne moo moo yoroon wàllu bi yàlla dogal it mu dëddu ba tey ñu ñu koy fàttalikoo ci bis bi ñu ko ñaar suñu borom gën dool dool yërmande bu defee loolu daal maam Thierno ci gàttal la bis bi daal noo ne ko Serigne Touba bëgg woon ca waxoon ca guddi gàmm moo lañ ko waajale mooy bu tata azima bi yakub dina la gën a tiim isdiadul minati li moxla sin moasem ndax loolu rek nañ ko waajee te ñaan sëriñ bi képp ku fi toog yàlla nekk sa faju aajo biir ak biti kon bu defee daal foofu ne euh, lépp daal ñu ngi koy waajal bi laxamin aw sukarin daal dara dara wu fi lépp jublu daal mooy mooy sant sëriñ bi moom daal lañ gën a leeral loo xam ne moom moo taxawaayu liggéey bi ak képp koo xam ne ki bëgg nga euh, aw aw yoon woo xam ne day tagtalee pour nga mën a taam ci daara ji boo ñëwee a euh, jàll ñuy përklo di nuyuwaale sunu mbokki ak caméraman bi nga xam mooy suñu Mourtada tey ñu ngi ko siyaar baax mooy waa Tawfekh Tawfekh production ñu àndoo ñoom muy si internet boo xam ne mu ngi ci réew mi di jàlle liggéey Serigne Touba dara ñu leen ñu àndoo a yokk matériel yi xéwal yi gën a ku ci nekkin yàlla na ci daje Tawfekh Serigne sant itam ndax interview am na solo lool kon bu ko defee ñoo ngi sant baax di ñaan suñu borom uh, fulal ñu liggéey bi ak Cheikh Khadim jërëjëf li ma ci dolliwaat rek mooy bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ci biir ñu naan ko liggéey yore programme uh, daara ji ak bis bi waaw jërëjëf maam Thierno xam nga loolu nga day loo am solo ci mbiru euh, ci ci mbir doomu waaye rawat na yëfi ndax mbooloo moom kenn ku ne xam na ni euh, kenn ku ne bu ñëwee dafa am lu muy àndaale waaye boo lañ bëtee rek euh, daanaka ñi ngi àndal ñi ngi àndal du ñu bëri kon da ngay daal di jël ñëpp rek takkaleen ci benn say kenn ku ci nekk nga jéem a ànd ak ñoom ca ca ne ba nga jàpp ne mu nga cax bu ko defee la nga bëgg a def ci moom boo nee ba si biir da ci mën a def waaye kenn ku ne xam ne mbir mbooloo rawatina mbir daayira ak ak la ci xew kenn xam ne képp koo xam ne xool nañ la bal na jiral nañ la ci nangam rek xam nga ne am nga aw sas xam ne moom moom fa nga ko ko moom moom bugg séntu moom kon kon bu ko defee loolu yëpp dana mën nañ ci jàngonte ay coono mën nañ ci jàngonte ak lu ne waaye lépp rek maanaam li tax nit ñi moom murit moom daanaka doo fa yëg yu ni mel maanaam lépp lu muy def da ci yëg sëriñ bi da ciy sëriñ bi kon kon bu ko defee mbooloo wax dëgg yàlla kenn naka wu ci àndal ndax mooy ñi nga xam ñoo ànd ànd bi ay ñi nga xam ne ñoo ànd kuréel gi ndax kuréel gi ba ba ni ko waxee ñoo ngi ci ànd ak waa Touba Maroc di ci ànd ak waa waa Mauritanie waa Italie di ci ànd ak waa Brésil di ci ànd ak mbooleem mbokk bi ñoo ne euh, te kenn ku ci nekk wax dëgg yàlla euh, bés bi jàppan noo xam ne ndax li tax sama gën a yéem mooy Pambal dafa nekk gox boo xam ne ñun di 21 villages di ñaari fukki dëkk ak benn yoo xam ne dañ leen boole tënk leen ñoo bokk ci benn kuréel goo xam ne dañ koo tuddee xetmatul xadim ànd liggéeyal Serigne Touba ak ak Serigne Mouride mi nga xam ne mooy sunu jànkat léegi loolu yi nag bi mu ñëwee kenn ku ne day bépp daay bu fi nekk jokk na ci moo tax liggéey bi daanaka day dëggër yom te gars yi maam dara ñorulee lu dul Serigne Touba kon ba tax na maam Thierno coono yi lu mu bëri bëri bëri def nañ ko addi Serigne Touba ndax wóor nañu ne maanaam lu mu bari bëri bëri séentu ko daal mooy payoor Serigne bi waaw kon daal loolu daal wax dëgg yàlla coono yu mu bari bari bari dañ koy sant sëriñ bi te xam ne euh, comme li ko fa mbooloo moom saa bu dikkee moom boo waaye buñ ñëwee rek da ngay boole la nga ne ak li nga nga mën ak li nga mënul booy def ko benn a ànd ak ñëpp waaw ndax nit ki boo bëggee def dara ci moom faw la mu nekk doo ñëw dindi ko ci waaye da ci ànd moom ba mel ne yaa ca boo ba si biir la nga bëri ci moom nga def ko ci moom waaw noonu noonu rek élément demee bu defee maa ngi jégalu baax xam naa loolu daal lañ ci doon euh, euh, wax rek waaw bu jombul nag xëy na yéen moom yéen ci gën a xarañ di ngeen ci indi lu gën a am solo incha allah jërëjëf mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, ñu ngi leen di joxat seen wàccuwaay yu baax di leen ñaanal jàmm ak tawfiix waaye di leen ñaanal mucc rek mbokk yi umb leen ne maanaam ñu ngi ci bés bu màgg bés bu tedd te mooy bésub soppi Serigne Mouride tubbeeku xidmatul xadim soppi Serigne Mouride Dione Touba Pambal tey jii ñu ngi ci bis bi nii wax ah, mbokk yi ñëpp a teew kenn ku ne yaa ngi ci li nga war a ne kenn ku ne yaa ngi jàpp fi nga mënee waaw kon ah, waaye nag dañoo ne ah, ni ko olof di waxee rek waaw kii waral yëf yi yëpp maanaam sëñ la waaye kii tax mbooloo bi doon benn say doon benn manko di liggéey ànd liggéey sëriñ moom moom lañu ñu toogoon te mooy sëriñ Mourou Dione di ko laaj maanaam yëg-yëgam ci bis bi ak maanaam. Euh, yëg-yëgam ci biir di ko laaj maanaam nu mu ci nu mu ko yëgee sëriñ Murid aoudu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi alalim wasalatu wasalaamu ala raufi rahim sayidina wa maulana muhammadin alkarim al ali wa sahbi alxadim wajaal kalaami rasidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen nuyu bu baax di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñu ngi siyaare mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci ay gox yi fasantikoo teew fii ci béréb bi ngir ànd bokk sant sëñ Touba muy lu mag loo xam ne ñun ñëpp kenn ku ci ne gis nga ci sa bopp ndax e, bis bii day bis boo xam ne dañ ko woote ngir ñaanal ci sunu waajur wa nga xam ne dafa jiitu waaye mu dombeek itam mbokki taalibe yi di fi ñëw di fas yéene ànd ak ñun ci bis boobu muy wax xidmatul xaddim ni ko maam Thierno waxe ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw ci liggéeyal ko sëñ Touba ànd ko ak nun ci xasaayit sëñ Touba yi mel loolu moom mooy sabab bi nga xam ne moo tax mbokki bi yëpp daje fi ngir ànd bokk liggéey sëñ Touba mel ni lu mën a doon xëy na des na tudd ay jëmm waaye nun moom day mel ni jenn waay lañ ci rek dunu dara ci mbir yi lépp rek mbokki taalibe yi fi teew la ñoom ñoo ko taxawee ñoo fas yéene ànd ak nun liggéeyal sëñ Touba waaye ñaanal ci sunu wajur wa sunu borom yërëm ko yeesal mën yërmande ci kawam tàbbal ko fi firdaws ak mboole si néewi jullit yëpp mel ni yëg-yëg bi ñu ci am nag mooy yëg-yëgu sant sëñ Touba rek ndax bis la boo xam ne xëy na biñ koy tàmbali booba sewoon na lool ndax booba euh, sama jëmm joo xam ne moom la ñuy wax sëñ Mor di jànkatu xasida moo daan ñëw fii di di ma may ak ngont sëñ Tuubaa fii ngont goo xam ne ngontu xasaayit la loolu nag moo dox ba tombeek sunu wajur wi itam wàccoon ci la 4 janvier 2016 ñu jël bis ba daal koy tegle ci bis boobu mu doon benn bis tombeek itam mbokki taalibe ñëw fii di ànd ak ñun ci liggéey boobu muy ànd bokk liggéey sañ tubaa di daayiratu xidmatul xadim bu defee yëg-yëg bi ñu ci am muy yëg-yëgu sant rek ndax mm, nga woote lenn ay jëmm bàyyi seen yitte bàyyi koo fu sori ak jamono ji ni mu xate yitte yi ni mu bare kenn ku ci ne ñëw teew ci bis bi ba noppi am ci pas-pas am ci yëg-yëgug maanaam mën a defar bis bi moom kese loolu moom ak sant Sëñ Tuubaa rek lañ ci def li ci ëpp solo rek mooy li ñuy ñaan mooy sunu borom defal ñu tawfiix ba mboolee si liñ fii jàng ci alquranul karim tudd ko fi ci yàlla waaye def ko ci ay salaatu ala nabi fii lépp lu mu ci mën a doon rek sunu borom jotale ko ci mboolee si wéy dawlu yëpp jullit ba njëkk a wàcc ba jullit bi mujjee wàcc yëpp yàlla na sunu borom yeesal yërmande ci seen kaw tàbbal leen jannatul firdawsi barke sëñ Tuubaa bu defee ñi ngi sant mbokki taalibe yëpp itam ci taxawaay bi na am ak jàpp bi nga xam ne jàpp nañ ko bis bi ak pas-pas bi nga xam ne wane nañ ko ci ndax liggéeyal sëriñ bi li ci ëpp solo moom moo di pas-pas rek bu fa nekkee moom donte ñaar nit la wala ñett sax yëf yi dana jëm kanam ndax Cheikh Moussa Ka da doon wax ne pas-pas bu manqué ci jëf dafay mel ni jëmm joo xam ne da doon ñaw fasul catu wëñ ga mu a ñaw ba yeggal bu xëccee rek day mel ni lépp da koy toppaat bu pas-pas manqué ci bis noonu lay mel waaye bu ca pas-pas amee donte ñaar nit wala ñett fu mbir mi war a yegg fu ne dana fa mën a yegg ndax sëriñ bi su boobaa mooy téel yëf yi boppam ndax am na doxin way dox ci yoon wi boo doxee ba yàgg mbir mi dootul doon yow waaye lépp sëriñ bi lay mujj doon ndax jamono jamono ju mu mën a doon rek moom day téye coone la bàyyi la ak ndam la loolu la mbir yi tëddee moo tax ñu ngi leen di sant bu baax si seen teewaay ak jàpp nga xam jàpp nañ ko bis bi pas-pas biñ ci wane ay yitte ji nga xam ne jox nañ ko ko itam ndax lii yitte ju réy rek moom moo ko man yitte ju réy rek moo moo ko man ñu leen di ñaanal suñu borom guddal seen fan wéral leen bu baax ba lépp lu ñu yéene ci liggéeyal ko sëñ Touba lépp ñu defee ko nañ ko bëggee te nu ànd ko taalibe yëpp di ñaan bu baax a baax Cheikh Ahmadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko naka noonu Serigne Cheikh Jëmb Fall suñu borom defal ko ak yàgg defal ko ak wér ba li mu yéene liggéey sëñ Touba lépp mu defee ko na mu ko bëggee te mu ànd ko taalibe yëpp ci tënk daal mooy ne sant nañ bu baax a baax cant goo xam ne cantuk biir la ak gu goo xam ne sax mënuñu koo feeñal ci sunu làmmiñ ci wax waaye li ëpp solo rek mooy sunu borom xam na am na lool ya'lamul xaa'inatal a'yun wa maa tuxfi suduur li alxuraan di wax loolu rek moo ci nekk sunu borom moom xam na li na ci xol li na ci dënn moom xam na ko waaye li ci am solo rek mooy euh, liñ mën a fésal ci cant jëmee ko ci mbokki taalibe yi mooy sant goo xam ne daal am na tàmbali amul kem cant moom mënta wees sant li ci ëpp solo rek ñu bàyyi leen ak borom bi subhaanahu wa taala bi nga xam ne moom moo yor fajug moom mooy moo yor ak wér waaye moo yore xéewal moo yore lépp mu sotti ko ci mbokki taalibe yi ba kenn ku ci ne boo fi jógee yokk ba yëg ne yokk nga ci barki Sëñ Tuubaa di ñaan ci barki Seex Xadim ku fi jóge yàlla na nga wér waaye yàlla nga am aajo yu faju yàlla nga am xéewal yu bari yàlla borom bi dafa la tawféex goo xam ne da ngay yëg ne man mii laata maa ñëw ci bis bi lii lii ma sunu borom defal defaluma ko woon laata maa dem ci bis bi ku fi jóge ku ko ba set bi ci ci bàkkaar barki Seexuna Axmadu Bamba Xaadimu Rasuul mel ni kàddu yooyu lañ doon joyal jëmee ko ci mbokki talibe yi di sant tey gërëm ñi fi teew ñëpp xam naa ñàkkul bu ci kanamee bu aajoo ñu jotal yeneen i kàddu dañ ko mën a jotal waaye fii ñu toll daal loolu daal lañ mën a waxagum wax ne wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jërë ngeen jëf aousubillah bisimillah jërëjëf sëriñ Saalix jërëjëf sëriñ Saalix mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal jàmm waa tawfiix mbokk yi ñu ngi ci bés bu màgg bis bu tedd ci mooy bés bu waa xidmatul xadim soppi sëriñ Murid Joon Tuubaa Euh, waxtu ñuy toll ni maanaam ñu ngi toog ci kii yi nga xamante ni mooy jëwriñ xali Serigne Thialé bokk ci kuréel gi sëriñ ba Bassirou Dione euh, waaye di ci liggéey liggéey boo am solo euh, liggéey bu ñëpp rafetlu te mooy majalis moom la yore ci biir kuréel gi moom lañu bëgg a jox kàddu mu sànni ci ay kàddu rek. aoudu billahi assamil alim min charri iblis allaayin alcheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sala allahu wa sallama ala ashraf al anbiyai walmursalin sayidna muhammad addaaci ila alxaqi almubin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli saabiqu ila almaghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samaa'i wal ard u'iddat lilladina amanu billahi wa rasulihi zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli al azim barki borom Tuuba assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki waa kuréel xidmatul xadiimi soppay sëriñ Mor Dione Pambal ak mboolem ñi fi teew ñëpp kenn ku ne ñu nuyu la siyaar la jox la sa wàccuwaay ñaanal la itam la sunu borom ak tawfiqam ak pajuk aajo zahiran wa batinan ci barkeb Serigne Touba tey gën a ñaanal itam li nga xamante ne mooy sabab bis bi te mooy ñaanal aji dem di sunu waajur sunu soppe sunu xarit bay Abdou ñu boole ko itam ci yéene gi Serigne Malick caw e, bokkoon itam ci kuréel gi doon ànd ak ñun ci liggéey bi sunu borom def mu jiitu kon yal na yàlla yokk seen daraja ci aljana ci mboolem ñaan yi ñu fi ñaan yëpp yal na sunu borom doole ko yiw ci seen jëfi yiw ya waa yàlla itam faral mboolem nekk loo xamante ni nekkoon na ay ñawte ci ñun ci ñoom waaye sunu borom defal na ko itam ñun ñi nga xamante ne ñoo ko taxawee itam sunu borom dimbali nu eh, ci mbaaxam ak yërmandeem itam jéggal nu mbooleem loo xamante ne amoon nañ ko ci ay eh, ñaawteef moo xam ñoo ko tey wala teyuñu ko xam nañ ko la xamuñu ko waaye ci mbaaxam ak yërmandam lan ko lan ko ko ñaane yàlla na ko yàlla nangul waa ñu gën a santaat yàlla bu baax ci ba mu ñu boolee ci liggéey bi nga xam ne eh, dañ koy ànd ak mbokki taalibe yi liggéeyal ci Sëñ Tuuba ànd ak sunu soppe bi sunu xarit di sunu jàngkat sunu lépp di Sëriñ Murit Jonn yàlla na sunu borom gën koo dëgëral itam yàlla boole nu itam ak jëwriñ yu mat jëwriñ ñoo xamante ni ànd ci liggéey bi te liggéey lépp tege ci xam-xam tege ci sunna ndax lépp loo xamante ne def na ko rek te dëppwut ak ni ko yonent bi bëggee rek jëf jooju dañ koy dellu waaye lépp lu lépp loo xam ne yëngatu nañ ko ci biir kuréel gi sunu borom mu ngi ñuy too feexal ci kattanamam ba mu ngi dëppoog li sunna mu am ci ay njàngale sëriñ bi te bu ñu nee njàngale sëriñ bi mooy njàngale diine di tëral téere xam-xam yi di def ubbi waxtu woo xamante ne ku am lu muy laaj loolu la lënt ci diine nga def ko ndax fas alu ahli zikrin in kuntum laa na loolu la yàlla njëkka a laajte wax na ne ku amut ku xamul na nga laaj ko xam kon nag loolu buñ ko ci doxalee kon loolu lépp tegu na ci alxuraan waaye toujours bés bu jot ñu am lu ñu yóbbulu ci ay ñaan ak xikma nga xam ne l'islam mu bàyyiwul dara lépp lu nit di mën a def am na fu la ko teg am na fu mu la ci jaarloo mu toofeexal nu ba loolu ne mën cee am te muy dox ci biir kuréel gi ñu sant yàlla bu baax waaw muy amee ñaan comme ni ngeen ko defee ci kaamil yi ak yëpp ñaan sunu borom yàlla na ko nangule waaye bis bi itam niñ ko doxalee jiital ci alquran ak xasun ak euh, xasida yi waaye def ci ay ay bernde fas yéene cee def ay waxtaan ak yooyu yëpp ngir lan képp ku ñëw ci bés bi rek boo ci amoon benn minute nga dellu boo ñëwee ngi si la fi jëriñ kon loolu mooy taazimuhu bi sunna kon yàlla na ko sunu borom nangul defal na ko ci barke Sëriñ Tuubaa sant nañ bu baax jéggalu bu baax gis nañ doxin gi rafetlu nañ ko lool waaye yàlla na ko Sëriñ Tuubaa nangu waaw ñu ngi siyaare waa kuréel gi yëpp ak mbooleem ñu fi nar a teew waaye rawatina sunu euh, caméraman bi nga xam te ne moo yore liggéey bi di sëñ Mortala yàlla na ko yàlla gën a yokk te waxoon naa ko ko it te dina ko gën a def dina ko gën a gis ci boppam ndax ndax gis nañu Euh, rafetlu naan ko sell na te am na ànd nag ci ak yéene kon yàlla na ko yàlla mottalee te dimbali nu dimbali ko dimbali mboolem jullit yi may jégalu baa ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu kon auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk jullit yi mbokk taalibe yi kon bu ko defee ñoo xam ne noo ngi nii toog ak sunu euh, waajur di sunu euh, lépp di Serigne du Thiaw mi nga xam ne day nekk sunu mbokku taalibe ci dëkk bi jii nag ñoo xam ne leeram boobu di Euh, sëriñ Malick Thiaw àndoon nañu ci liggéey bi liggéey daaw ñu toogoon fi ci basang yi nekk ci liggéeyu xasaay di yàlla dogal mu jiitu it moom yi nekkoon na waajuram euh, yàlla dogal mu teewal mu teewee ci liggéey bi ñu sàkkoon it euh, mu indil ñu lenn ci ay témoignages yoo xam ne mu ngi koy jël jëmee ko ci moom ah, ndax ren jii kat bokk na ci ñi nga xam ne dañ la ñuy fàttaliku ci bés bi incha allahu rabbi kon sëñ Malick Thiaw waajuram la leen di dékk micro lu kàddu yi nga xam ne dina ko indi ci moom incha allah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum borom yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal di leen saragal rawatina waa daayira bi ndax dafa nekk daayira bi nga xam ne ah, daayira buy wommat nit ñi jëmale leen ci sunu borom ndax fii li sëñ Touba santaane ci lañuy yëngu suba ak ngoon li ma ci xam nag Malick mi nga xam ne moo nekkoon ak yéen nekk na koo xam ni kii wax dëgg yàlla daf may yéemoon sax ndax man day waajuram laa waaye demoon naa ba yàgg may sàkku ci moom mu bàyyi ma xel ndax gisoon naa ci moom yoo xam ni wax dëgg si yàlla yegguma fa te am na yoo xam ne jafeyoon na ci man waaye gis naa ci moom melokaanu taalibe ba fekkee ne taalibe nii la ah yéen dey moom nag rawoon na taalibe murit sadiq la woon ndax remarqué naa ci moom dafay jàng alxuraan lu bare bare bare bare su wérdoo ba yàgg mu pare ci wérdu bi te kur bi ci baat bi daa de commencé waat ci téere bi ate am na téere boo xam ne saa wu takkusaan jotee moom téere boobu moom dana ko jàng keroog bi ma yëree téere bi nag ma ne ko waaw téere bi foo ko jële mën ma téere bi dey sama sëriñ moo ma ko jox ñu koy wax maxfuus laa ma ne ko waaw bii de moom am na solo de ma ne ma waaye nag oo mën digal pour jox ko kenn ndax dama ciy liggéey Malick nekkoon na koo xam ne téere ba bagaasam yi am na ci yoo xam ne wax dëgg si yàlla am na boo xam ne am naa lu mat ay ati at maa ngi ko bëggoon waaye ci moom laa ko gisee waaye kàgguam googule mu yore woon façon secret mbóotu baatin bu nekk mu nga foo man de xaw ma fa ma ko te benn waxtu da ko raw mooy ngi jàng mu ngi ci kurusam dañ ñaan nag yéen ni nga xam ne yéen a bokk ak moom ngeen def loolu ci moom yal na yàlla jàppale leen yàlla yàlla jéggal ko yal na yàlla teeru ko ak yërmandem man day wax dëgg si yàlla bi mu ma waxee man dama bëgg a jébalu maa ne ko na nga faxe ba sa sëriñ na la xam xàmmee la ndax jégalu jébalu naa rek nekk taalibe doyul ndax sa sëriñ bu la li ba nga xam ne boo demee nga di ko nuyu mën a yow yaay kan de la laajte maa ne bu boobaa defuloo li nga war kon nag na nga saxoo di siyaara ji sëriñ ba te nga saxoo déglu ndigalu sëriñ bi di ko jëfe te ngay bàyyi ay tereem kuréel gi nag seen dayre bi gis naa ci njëriñ ñu bari ndax daayira boo xam ne soo ci bokkee boo feebaree ñu ñu ñu ñu la bokk yow fajo gi boo amee xew jàmm ñu ñoo dokkal si la boo xamee xewow musiba ñoom ñu ñëw ànd ci ak yow kone ne bi dayri bii nekk na loo xam ne ah mbokk mënu ko yóbbul dara ci doomu aadama ba pare nag ñu lay jàjjanti de la jàngal adduna de la jaamuloo yàlla di la xamloo yàlla di la toppandoo yàlla dayre bi maa ngi koy ñaan maa ngi ñaanal dayre bi yàlla na ko yàlla saxal te ñi ci jóge yëpp yàlla yàlla jàmmal leen ñi nga xam ne ñoo génn ci dayre bi yàlla na yàlla defal leen nangub ñaan adduna ak allahira maa ngi sant seen jëwrin mu nekk Alioune man yàgguma xamante ak moom waaye nekk nañu hôpital ca feebaru Malick mu indi xaalis ñu demaat ba amat semaine mu waree xaalis moom daa fu ñu toll rek day ñëw walla mu waree ñu te loolu yëpp mu ngi joge ci dayra gi kon dayra bi dayra bu dëggu la te dayra bi yal na ko yàlla jàppal ak boppam lii day wax dëgg si yàlla képp ku ci nekk yàlla na bul ci génn képp ku ci nekk ku ci nekkul woon yàlla na yàlla def mu nekk ci moom ah, sama doom bi nga xam ne mooy Daawuda dama ne Alioune maanaam ma ne mu ngi ne xale bu ndaw la keroog bi sëriñ bi ñëwee mën ma dama bëgg a jébalu ma daa da koy wommat dem ba ci sëriñ ba sëriñ ba ñaanal ko ma ne sëriñ bi mu ngi noonu waaye Alioune mi dénk naa leen ko yéen ñi nga xam ne yéenaa mbokkat ci dayre bi waa dayre bi dénk naa leen dawda moom na nga xam ne malik loolu la doon def def leen ko ak moom te ngeen da ko jéemantal da ko orienté moom daal mu ngi noon maa ko joxe ci sama ndigal maa ko joxe ci ndigal te mu soob maa ngi leen di gërëm di leen sant la yàqu ci wax ji ngeen jéggal ma ko la ma ci jublu woon rek mooy wax ju baax waaye wax dafa jafe jërëgeen ngeen jëf maa ngi ñaanal àllune euh, kii ni mu tuddate murit murit maa papaam ñoo bokk dayra ah papaam itam euh, tey ñu boole sama doom bi ak ñoom ñëpp ci ñaan bi kon génnewu leen ma ci waaw kon nag ñaan naa yàlla yàlla ñangoo ñaan ñi yàlla yàlla def leen mag